ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu bureau association bi di leen gërëm di leen sant également euh, ci réaction bi ñu réagir ak condition yi nga xamante ne moom la ñu convoqué réunion wu tey bi te ambassadeur wax ko léegi bari ay torof torof lool mais malgré tout ngeen toog xaar pour que ñu mën a waxtaan ci suñu biir entre sénégalais. kon ci kaw loolu dama leen ciy gërëm sant leen ci di leen ci baalu ak également di leen ci jéggulu parce que bu nu sañoon 19 heures dinañu doon fekk fii waaye nag mbirum avion moom moo xaw doy waar moo tax guddi gi en fin de compte la réunion bi mujj am li ambassadeur wax du ci yokk dara xanaa kay peut-être andi ci waat ay leeral rek parce que bu yàlla defee ngeen bokk ci Sénégal yi nekk bitim réew installé wu fa problème yi nga xamante ne yëpp énuméré na ko léegi mu nekk problème yoo xam ne bépp doomu Sénégal bu mun munti nekk bitim réew moom ngeen partagé wu mooy mbirum financement muy mbirum document administratif muy mbirum accès au logement muy mbirum rapatriement des dépouilles boo koy xool problème yooyu moo ëpp ci li sénégalais yi jànkonteel bu ñu nekkee bitim réew mais ginnaaw loolu am na leneen loo xam ne war nañ ko mën a waxtaane suñu biir loolu moo tax ma ñëw sama ñëw bu njëkk fii ci Brésil ci contexte bi parce que ñëpp xam nañu ne contexte bi contexte wu euh, daanaka xel yëpp dafa jëm ci tabaski jëm ci aji màkka mais urgence bi mu urgent moo tax président jox instruction ministre des affaires pour que lépp lu mu doon def naa ko ba ñëw ci waxtu wi parce que mënatul continuer xaar kon nag liy jóge fii dafa yitteel président de la république dama koy firndewaat ñëwaat ci ngir ku ci nekk ci yéen xam ni li ñuy jëlee fii ci information war ko ko yóbbul préoccupation am la mais ginnaaw loolu dina am loo xam danañ leen ko wax. jarul mu yegg ci moom pour mu réglé wu ambassadeur wax na ko léegi bu yàlla defee balaa may ñibbi moom dina fexe ba commission ñëw pour ñi nga xamante ne am nañ jafe-jafe passeport pour problème boobu réglé parce que lim ci jublu mooy 6 mois bu jot bu ñu amee au moins 100 sénégalais yoo xam soxla nañu passeport ku ñu fexe commission ñëw fi 6 mois yu jot loolu. jarul mu yegg ci président de la république moom ci boppam ak i pexeem mën na koo lijjanti te lijjanti na commission bu fu war a ñëw bu war a jóge New York du jógee sax Dakar consulat général bi nekk New York am na commission d'enrôlement de passeport bu nekk foofu ñoom lañ mën a mettre en mission suba dinañ xam kañ la ñuy ñëw exactement au Brésil wax na léegi mbirum accès au logement loolu aussi il faut ma am lu ma ci yokk parce que logement il faut ngeen xam ni bu yàgg jafe-jafe la woon pour Sénégal ña fa dëkk sax am logement jafe-jafe la woon bi ñu xayma li ñu soxla ci ay logements sociaux au Sénégal ëpp na trois cent mille logements at bu jot pour que ci juróom-ñaari at at bu jot nga def mille logements pour que juróom-ñaari ati yi bu motee nga mun a résorber déficitu logement social bi nekk au Sénégal parce que li fa nekk ci ay jeunes cadres génn université yor sa diplôme te mënuloo am benn possibilité dem ci banque ñu lebal la xaalis parce que sa salaire du la ko permettre wala ki nga xamante ne moom moo yor projet immobilier yam moom du weesu 5 ans bu la jaayee këru 15 millions ci 5 ans nga koy fay. même bu la banque lebalee xaalis ci cinq ans nga koy fay kon boo dee jeune cadre doo ko commencé liggéey dina jafe lool nga mun a am condition yooyu buñ ko yóbbu woon ba dix ans yóbbu ko ba quinze ans yóbbu ko ba vingt ans weer wu jot ay cinquante mille ngay fay wala ay quarante mil di nga mun a fay logement bi di nga mun a dund di nga mun a yóbbu sa doom mu jàngi mais bu ñu la ci cinquante nga koy fay soo moytu dinañ jël ci sa salaire lu tolloog cent cinquante mille wala. lu yées cent cinquante mille te boo amee deux salaire deux cent mille mënoo dund ci loolu yow ak sa njaboot kon loolu moo taxoon jafe-jafe am ci loolu mais yàlla am na ci léegi saafara promoteur immobilier yi nekk Sénégal ñu ci ëpp léegi nangu nañu di joxe seeni kër ba mu dem ba dix ans ba dem ba quinze ans su fekkente ne sa retraite permettre na la ko léegi nag ci kaw loolu Sénégalais de l'extérieur dañu am benn spécificité bu ñu am spécificité bi ñu am mooy li ëpp ci yéen. ci informel la ñuy liggéey maanaam kuñ ci laajoon bulletin de salaire doo ko mën a andi kon lan mooy solution bi ci loolu solution bi mooy coopérative d'habitat coopérative d'habitat njariñam mooy bu fekkente ne dañoo teg kuréel bi ñu am ay membres yu ci ne bu fekkente ne cinquante personnes lañu mun na ko ëpp ko mun na ko yées tout dépendra ci ñi ci bëgg a bokk cinquante personnes yooyu bu ñu defee seen assemblée général fal seen président fal seen secrétaire général fal seen trésorier ñoom dañuy wax ne weer wu jot dinañ cotiser cinquante dollars wala cent dollars wala cinq cent dollars ñoom ñu décider ko kon weer wu jot membres yépp dañuy cotiser ñu jël xaalis bi denc ko ci compte bancaire su ngeen defee un an de cotisation wala deux ans wala six mois ngeen waxtaan seen biir fan ngeen bugg kër ci biir Sénégal bu dee dakaar la ñu ne dakaar lañ bugg kër ngeen ñëw seet si ñu jaar ci ambassade bi ñu boole leen ak promoteur immobilier boo xam ne moom dina accepter yéen mu jox leen ay logement via la coopérative maanaam du ko joxe via Sori Kaba bi nga xamante ne amul salaire du ko joxe via Baba Cissé bi nga xamante ne amul salaire mais coopérative bi la koy jox te su boobaa président coopérative bi moom mooy personne morale bi moom mooy wax. ak promoteur immobilier bi weer wu jot yéen ñëpp li ngeen di cotiser war naa toll ci un million de francs CFA ngeen versé su motee cinq ans ku ci nekk da nga jot sa kër exemple laa joxe donc loolu mooy avantage yu coopérative d'habitat donc pour accès au logement il ñu organiser wu donc organisation boobu nag mun na génn ci biir association bi parce que doon association terewu laa am coopérative d'habitat ci biir mun na nekk daayira nga am coopérative d'habitat ci biir mais l' essentiel rek mooy il faut mu am coopérative yu taxaw ñi bëgg kër Thiès ànd defar uti kër Thiès ñi ko bëgg Saint-Louis ànd uti ko Saint-Louis ñi ko bugg dakaar nekk ci coopérative bi ñu utal leen ko Dakar léegi nag ci kaw loolu xam leen ne 30 pour cent wu logements sociaux yi au Sénégal yéen a ko moom moom la yéen la ko président jagleel mais ku ci organiser wu mënuñ cee jot. d'autant plus que organisation am solo 150 hectares. parce que Lac Rose dafa bokk ci domaine bi nga xamante dañ ko attaché ci Diamniadio mu nekk zone économique spéciale mu jox instruction le délégué général bi nga xamante ne moom mooy aménager euh, jam Diamniadio ne ko boo aménager Lac Rose na nga réserver cent cinquante hectares pour sénégale yi nekk bitim réew waaw mais sénégalais yi nekk bitim réew nag bari nañ bari waaye boo xam ne ñu njëkk a organiser wu njëkk def demande ñoo ciy mun a am parce que du moto ñëpp. mais au moins loolu day wane ne xelam a ngi ci yéen donc ci mbirum logement yi loolu mooy point d'information bi nga xam ne dina am solo ci bu ngeen di intervenir ngeen intégrer ko mbirum financement financement yi ñaari niveau dafa am financement des femmes de la diaspora loolu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir diaspora ñoo ko moom mais financement boobu buñ ko accordé les jigéenu Brésil yi pour fii la ci Brésil ku fi yor restaurant ku fi yor salon de coiffure wala ku fi yor benn activité boo xam ne état da lay roof loxo nga mun a dimbali ku dimbali sa njaboot dimbali sa borom kër jigéen ñooñu ñoo ko moom mais ci pays ba ñu dëkk la financement bi intervenir mais financement boobu il faut ngeen xam ci lenn du man du ministre des affaires étrangères du administrative FAISE kenn ci ñun mënul décider président rek moo ciy décider moom kese moo naan waa Brésil nañ leen jox cinquante million nañ leen jox cent million nañ leen jox deux cent millions nañ leen jox trois cent millions il est seul à décider de ça par contre beneen financement bi moom moo nekk phase bu originel bi góor ak jigéen ñëpp ci bokk yem waaye Sénégal ngay defaree ngay intervenir projet donc day am solo ñu def la part des choses projet yi nga xamante ne da ngeen ko war a déposé au niveau de l'ambassade mën na nekk financement femme diaspora mën na nekk également financement pour Sénégal l'un comme l'autre dafay am solo mu leer ci seen bopp foofu ngay xam fi ngay taxaw mais boobu góor ak jigéen a ci yem par contre pour Brésil financement femme diaspora c'est pour l'instant c'est exclusivement pour les femmes li ma ciy yokkaat ci mbirum rapatriement yi alors jamono day dox te ni jamono di doxee mooy tax ba stratégie yi di évoluer wax naa leen ko léegi ci njëlbeenu kàddu gi bu fekkente ne président dafa joxe instruction pour que Sori Kaba ñëw Brésil c'est parce que xelam mi ngi Brésil ça veut que enveloppe bu ndaw bi nga xamante ne joxoon nañ ko madame l'ambassadeur ci premier semestre deux mille dix-huit bii dana yokk inévitablement parce que problèmes sociaux yi ñuy commencé identifier au Brésil tax na ba moom il faut ñu yokk ko doole ngir mu mën la am fu mu leen féete yéen ma taxaw tuuti nag ci moom pour ngeen am lu ndaw lu ngeen xam. cest à bu ñu dajalee ambassadeurs yi nekk bitim réew yëpp di représenter Sénégal ñett ñi ci jiitu en terme de capacité ci xarañ ci xam-xam ci ñett ñi la bokk loolu dama leen koy xamal ngeen xam ko kon ku mel noonu soo ko yónnee ci dëkk doo ko fa yónnee di ko gàllankoor moom président de la république dina ko roof loxo pour que yéen mu am fu mu leen war a mën a féete de manière utile et de manière durable liggéey nag buñ ko organiser wul rek jafe-jafe dana ci bari te ñun dafa am loo xam ne dañu ko lambee ñun sénégalais ay liggéeykat lañu raar na nga gis sénégalais bu nekk bitim réew doon yaafuus raar na même si génération yu mujj yi voilà technologie de l'information yi tax na ba lépp seen mbir dafa yomb. mais bu ñu nee sénégalais de l'extérieur toujours li ñu ciy teg mooy liggéeykat la xamul caaxaan mais nag ñun li ñuy mën liggéey yépp leneen li ñu bàkkee mooy organiser wuñu organiser wuñu ku ci nekk bëgg nga am association boo xam ne yaay fëgg sa dënn ku ci nekk bëgg nga jiitu mais tey fi jamono bi toll ci mbirum migration bu ñu organiser wul mënuñoo régler problème mu migration. parce que état dafa am lu mu ci moom di ko jaarale ci ambassade yéen ngeen am lu ngeen ci moom di ko jaarale ci association yeeg daayira yi te loolu man gënuma leen ko xam parce que li wóor li wóor ambassadeur wax na ko léegi ginnaaw les cas de meurtre wala les cas de mort violente accident entre autres mort naturel génn àdduna su fekkente ne amuloon police d'assurance dañuy solidarité entre nous pour mën koo yóbbu Sénégal ñu dañ ko foofu kon nag ñàkk organisation bi ci ñun la mais bu ñu nekkee ci problème boo xamante ne ku nekk da war a rof sa loxo sa moroom ku nekk di nga xalaat sa morom kon bu ñu ko teelee teg rek jàmm dafay am fi may tëjee fi may tëjee moo di ko su ma sañoon su ma fi dellu siwaatee le 13 août bii di ñëw. bu ñu fi yàlla bàyyee may ñu fekkee ba ñu dellu si fi damay bëgg mu nekk un forum des sénégalais yi nekk biir Brésil parce que mosu fi am parce que organiser wuñ forum bi ñu ngi koy organiser États-Unis ñu ngi koy organiser Gabon ñu ngi koy organiser France ñu ngi koy organiser Espagne ñu ngi koy organiser fépp mais Brésil organiser wuñu ko fi parce que organisation bi dafa des te forum boobu c'est un rendez-vous annuel boo xam ne lépp liñ fi wax day nekk occasion pendant deux jours pendant trois jours promoteur immobilier yi nekk Sénégal yëpp banque yi nekk Sénégal yëpp ku ci nekk la ngay def jëmee ko ci sénégalais ba nekk bitim réew ñu dajale leen pendant trois jours fii ci Brésil mu nekk benn waxtaan bu ñuy am ak ñoom loolu mooy mën a tax ngeen xam lépp li xew Sénégal jëm ci yéen lépp li nga xam ne ku ci nekk ci yéen porté na ko comme projet comme programme bu ko yóbbu Sénégal nga xool kan moo la ci a dimbale pour nga mën koo réaliser au Sénégal. président de la république bu demee ci dëkk bu ñëwoon tey fii ci Brésil war a rencontrer le président brésilien balaa mu koy rencontrer dina rencontrer sénégalais yi ba pare daf ko def principe kuy soofantal ay nit doo def loolu dëkk bu mu mënti dem nag li muy njëkk a def mooy rencontrer sénégalais yi nekk ci dëkk ba loolu benn point la beneen point bi wax naa ko léegi ci moom. du ca gën dama leen ko doon wax pour ngeen neexal ko wala pour ngeen bëgg ngeen gën ko bàyyi xel déedéet mais considération bu mu jox Brésil moo tax mu andi fi ki gën ci ñun foofu laa doon waxee mënoon na jël rek benn politicien nommé ko ambassadeur yónnee ko Brésil parce que am na yeneen dëkk yoo xam noonu la fa demee ma am problème yu wër nag ak ñoom yu wër a wër. parce que problème bi ngay am ak ñoom mooy fu tolof tolof amee boo ci jokkoo ak ñoom mënuñu laa wax lu day ni bën bu nu puso dañ laan na xaaral ma woowaat la balaa ñu lay woowaat fii ak une semaine yow fekk na boobu pare nga ci mbir mi ba classé dossier bi parce que am na keneen koo woo ba mu jox la information yi ba nga pare ci sa liggéey moom bu ma ko wooyee fekk naa déjà préparé na ay message du lu mu fi toogat ak ma koy wax mais yëg-yëg bu mu am ci nit moo indi loolu kon dafay am solo ku ko xam wax ci moom parce que moom du mën a wax ci boppam de déedéet du mën a wax ci boppam kon genre dénkaane laay def ndénkaane boo xam ne dafay jóge ci man jëm ci yéen ngir moom jóge ci man jëm ci yéen ngir yéen it ngeen gën a mën a am consideration bu ngeen am à son endroit ngir liggéey bi mën ndox parce que wax na leen ko léegi diplomatie dafa am nu muy doxee munoo tëb a tëb rek dem ca ministère de l'intérieur ne ko waaw sénégalais yi ñuy rey loo ci xam lu dox doo ko régler déet du noonu parce que mini ambassadeur bu Brésil ba nekk Sénégal bu tëbee tëb jëm ministère de l'intérieur bu Sénégal li l'envoie génn la koy wax tu ne pas mon interlocuteur kon luñ dul nangu suñu dëkk duñ ko nangu ci dëkk jàmbur duñ ko def dëkk jàmbur kon nag. li ñuy nekk dëkk bu ndaw yépp suñu diplomatie dafa am doole dafa efficace te diplomatie boobu mooy mun a tax yéen enjeu bi ngeen constitué tey ngeen jouer un rôle dans la diplomatie le secrétaire général wax na ko léegi en parlant de mobilisation communautaire de ressources en parlant de publique au développement en parlant de solidarité internationale mais enjeu yooyu moo tax ba gestion sénégalaise de l'extérieur gouvernance sénégalaise de l'extérieur nekk un enjeu de notre kon bu kenn jàpp ne wala bu kenn xalaat ne les sénégalais de l'extérieur ne sont pas assistés léegi nag ñi fi génn àdduna te dossier bi nekk ay dossier wu de crime mu pendant devant la justice li ngeen ñu doon mooy su fekkonte ne defuñ ci benn jéego su fekkente ne considéré wuñ ko dañ ko classé génn na àdduna denc nañ ko Sénégal basta su boobaa mun ngeen ñu ko reprocher waaye nag mënuñoo ñoo jàpp ci police brésilienne bi jàpp seen loxo ne leen accélérer leen procédure bi pour mu yegg mënuñ koo def Italie ñu koo def France déedéet du doxee noonu te pour ñu mën a xam exactement nu muy doxee li may proposer mooy su amatee un cas de crime sur un Sénégalais ñu installé un comité de crise ambassadeur installé comité de crise boo xam ne moom wala kam ciy délégué président association ba nga xamante ne fa mbir ma amee fa la dëkk ñu xool ndax am na avocat bu ne ci dëkk bi bu amul état fexe ut avocat pour que comité de crise boobu nànk mbir mi importance bi muy am mooy président association ba fa teewal sénégalais yi dina xam fu dossier bi toll moom ci boppam dina mën di informer sénégalais yi di leen gindi dina xam ndax diplomate yi ñu ngi liggéey wala liggéeyuñ parce que tey lu mu ci munti wax rek yéen mënu leen koo prouver mun ngeen de ah day wax rek ñun mënuñ koo prouver kon nag voilà mais bu comité de crise amee jéego bu mu ci def di ngeen ko xam lettre bu mu bind di ngeen ko xam information bu police bi joxe di ngeen ko xam kon loolu mën na nekk loo xamante ne dafay associer sénégalais yi ci gestion wu mbir moomu te comme ay solution moo ñu tax di wut moo ñu tax di dox nu ñuy gën di améliorer les conditions de séjour à l'étranger ku ci nekk ci yéen aussi dañ lay interpeller pour que nga xalaat lan nga mën a proposer luy jëmale mbir moomu kanam bañ a toog rek di pointe du doigt loolu duñu ñu jëmale kanam bu ma ñëwee ci politique migratoire bu Sénégal alors depuis les indépendance pour ñi nga xamante ne yàgg na ñuy voyager de mille cent 1960 en cent quatre 1980 pour génnoon Sénégal dem beneen dëkk xam nga lan nga doon présenter comme kayit sénégalais bu mu mënti doon autorisation de quitter le territoire sénégalais. jamonoy Senghor sénégalais pour mu tukki il faut que mu am autorisation pour génn territoire bi wala du génn loolu politique migratoire la parce que dañ doon bëgg a xam kiy jëm fan la jëm lu mu fay wuti ban condition la demee fan la ñu nekk Abdou Diouf bi mu nekkee président de la République la dindi demande autorisation boobu maanaam ku bëgg a jóg mën nga jóg ku bëgg a dem mën nga dem. ci la sénégalais yi jël Italie jël Espagne parce que temps yooyu Italie Sénégal amul visa kon ba tey politique migratoire baa ngi évoluer jamono jii ñuy wax ak yéen immigration irrégulière mu ngi rey sumu jeunes te xam ngeen ci dara fan la ñuy jaar Tambacounda Ziguinchor Kolda dem Mali dem Burkina dem Niger. traverser désert bi pour ne dañuy dem Libye pour continuer foofu dem Italie ci ñett at yi weesu lu tolloog quinze mille deux cent sénégalais wàcc nañu Italie jaar ci filière boobu noonu ña des ca géej gat ak ba kenn mënu koo xam li ma leer mooy ëpp na xayma boobu mais mënuñu ko xam parce que au départ. ambassadeur wax na ko léegi ba ñuy départ xamuñu woon fu mu jëm xamuñ nombre bi waxtu wi ñuy wax ak yéen document wu politique nationale migratoire bi tënk nañ ko ba pare nañ ko waaye man li ma ci intéressé bariwul xam nga li tax parce que balaa ñuy initier politique national migratoire boobu ba pare processus bi ñun amoon nañ ce qu'on appelle un plan stratégique opérationnel boo xamante ne l'ancien ministre des affaires étrangères moo ko validé woon ba pare ci ñett ponk lañ ko tënkoon plan stratégique opérationnel boobu ñu ngi ko war a évaluer décembre 2018 bii ci ñett ponk lañ ko tënkoon bi ci jiitu mooy promotion et assistance des sénégalais de l'extérieur dinaa fa taxaw tuuti promotion et assistance des sénégalais de maanaam tey lépp li nga xamante ne ci diaspora bi boroom xam-xam la boroom diplôme la amoo diplôme waaye yàlla may na la expérience ca fa ngay liggéey te expérience boobu réewu Sénégal soxla ko association yi dañ leen a laaj ñu defaral ñu fichier ànd ci ambassade yi te loolu président de la république moo ko santaane kon président d'association on demande un fichier dans ce domaine la ngeen jébbal ko pré euh, consul euh, autant pour moi ambassadeur moom mu jotalil ñu ko dakaar su fekkente ne motale na ko comme ni mu ko motalee fii ci Sao Paulo motal ko ci yeneen état yépp ñu am la liste de sénégalais de l'extérieur hautement qualifiés borom diplôme yi boroom borom xam-xam yi borom expérience yi loolu mooy vole promotion bi mooy ponk bi njëkk ci plan stratégique opérationnel bu direction générale des sénégale de l'extérieur beneen bi. mooy facilitation accès aux documents administratifs est-ce que xam ngeen ne Sénégal rek mooy pays africain bu ñuy defaree ay passeport am bitim réew ci pour ay doomu réew yu nekk bitim réew du Côte d'Ivoire du Gabon du Mali du kenn ñun rek ñoo koy def te production passeport yooyu huit centres lañ ci installé dans le monde huit xam ngeen ñaata la ñuy produire par passeport par jour cent passeports par jour la capacité de production yooyu am ça veut dire huit cent passeports par jour te am nañ capacité produire ko huit cent passeports par jour dafa xaj ci Sénégal l'extérieur on vous estime trois millions à l'étranger bu ñuy defar huit cent bu ñu amee capacité defar huit cent passeports par jour ça veut dire que kon waratuñu am problème passeport kon problème bi xam nga fan la ne ci organisation bi kon damay dellu si waat jawriñ bi may wax organisation néew ma organiser wu leen de parce que association am na fi daayira am na fi mais xam naa ne it mutuelle de santé amu fi xam naa ne coopérative d'habitat amu fi xam naa ni ambassadeur tey bu fekkonte ne dafa woo président d'association bi président daayira bi mun na ko wax pourquoi woowuloo ma parce que xaw na feeñ ci sa kàddu ah kon heureusement kon heureusement kon heureusement kon ça veut que donc li fi nekk mën nañ ko gën améliorer ba ëllëg moom bu wooyee président ne ko commission ñëw na dinañ xam ndax commission boobu dina fa fekk cent personnes deux cent personnes trois cent ou cinq cent ou mille ça veut dire quoi exactement ñan ñoo soxla tey waxtu yi ñuy wax quels sont les gens qui sont en besoin de renouvellement de leur passeport est-ce que tey mën nañoo joxe un nombre ci jeetaay bi ñu toog nii et pourtant am nañ capacité wu production de huit cent passeports par jour ça veut dire que donc mieux on s'organisera du côté sénégalais du côté de l'administration on règle ce problème là définitivement maintenant xaw na maa sànni xeer ci benn interview moo tax dinaa ko xaw a sànniwaat xeer ci interview nee na Sori Kaba nee na président de la république nee na ko nañu ubbi centre de production passeport Afrique du Sud nañ ko ubbi Canada moom mu ne pourquoi ñu koy ubbi Canada te sénégalais yi ëpp Afrique du Sud autant pour moi ëpp Amérique du Sud am na ci droit am na ci droit te nangul naa ko it li mu wax mais dama koy xëcc mu toog sama place pour comprendre li tax ma wax loolu sénégalais yi nekk Canada ñi ci ëpp ci ñoom ay étudiants lañu. ñu ci ëpp ci ñoom ay étudiants lañu amuñu visa pour dem États-Unis pour mën a dem ci consulat bi ñu defal leen seen passeport systématiquement li ñuy perdre mooy seen inscription te boo perdre sa inscription perdre sa carte de séjour te inscription cher na fa cheraay goo xamante ne loolu moo indi woon mu ne kon ñooñu priorité la même bu dee nombre bi bariwul. mais ça veut pas dire que dafa soofantal waa Amérique du Sud li ma ci yokk moo di que ministère de l'intérieur ci seen bopp ñoom ñoo ne woon bu ñuy def seen arbitrage par rapport ñoom ak stratégie yi ñu yaakaar ne war nañu koo mettre en œuvre centre de production boobu Brésil lañ ko war a ubbi wala ñu koy ubbi Canada président ne leen kon ubbi leen ko ci ñetti dëkk yépp benn yoon foofu yàlla def nag ñaara fa disponible ñaari centre de production moo disponible actuellement mais nag comme waxu kilifa warul fanaan àll daf ko dig waa Afrique du Sud dig ko waa Canada te comme diggagul ko waa Brésil te ñu ngi lijjanti ko kon nañ ko jox ñu ngi ko dig ba pare en attendant bu yi sotti ñu indi ko Brésil noonu la wax ji tëddee.